tubaab ya di bañ sëriñ sa diyem boromam mu fab di janti tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boromam malaaka seere pal gamam fa diwaan muy fal ay xutbu yi déeg boromam balaa la fa am ci pi ar ci baytin ñu di soog daam te jaay si boromam te wutaatu yonen far ci kaw suuf kun ci lépp lu sob mu làkk ngërëm ci zaahir ak ci baatin maqaamam fawqa mboolem ñun boromam de ku dem duy ku soobu ni mes bu génnee xam boromam ku soobu tey wey ta aw yoonam wa feesal cay leeram ba fa di biyal ku soobu def na xam ndox ndox bu yeewul te watum ndox lewet na te wex ca ku saggan sanku faw ta labto doo duy te doo set doo setal doo xam boromam melay bàmbaay ngi waaju xamul na dégloo te roy roy li jikkoom ya moo xam boromam di jox aji laaj di dimbale ay dëkkaay leen du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boromam di faj aajo ka xam le mbur di seexal di génn guru toskare jox boromam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 jaa